cabinet borom njurul cabinet borom njurul ñu fay seen boroom jamono di Serigne Saliou Mbacke xam-xamam màcc lool si fajum cosaan waaw waaw Serigne bi ñu ni ko tey foo génn génnati mënuñu xanaa médicament boroom njurul yamuk lool tolluwaay jamono dara doxatul si néegu sëy naxtale doole góor la yokk di ko yokk ndoxum siti hémorroïde ballonnement diabète tension da koy faj ma ne ko wàllum bët nag mu ni ma aw ma si moroom waaye it perte blanche dama ko mën infection prostate sinusite ak règle douloureuse faj rek dong kase borom jamono yamul foofu dee nee na sëriñ si bu ñuy def benn moom ñaar lay def ñaar listixaar ak seet mu ni ma maa ngi mbuur wooteel gaaw ci 76 611 33 nga jëm 78 578 68 40 bu fekkee Dakaaru Njaay nga jëm 77 199 93 Serigne Saliou Mbacke borom jurul jërë ngeen jëf mbokk yi toxna Allô Sénégal gannaaw bañ leen di rafetlu li ngeen di toppee suñu chaîne bi ngir informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew seen actu bi ñu célébré ni ki démb mu mel ci yenn ci ay gox yoo xamante ne ràññee nañu ndaw ñi di fa dem di fa amal lii di ay fête mu mel nag bi le 15 août occasion la ci ndaw ñi rek ñu ñuy dajaloo ci yenn ci ay boîte de nuit di rek feetu waaye nag yenn ci ay vidéo sax daa dinay circuler rek jëm ah, ci ah, lañu ñu sax lu motif mu doon ay vidéo yu doy waar yoo xamante ni daal dinay circuler rek sur le net ah, ci rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo daal di amal yi les vidéo yu ñaaw yoo xamante ni rek daanaka ni ki démb moom moo def le tour de la toile daal di rek lëmbee réseaux sociaux yi mu doon ay vidéo yu doy waar bu ñu jógee ci loolu ñu daal di wax ci problème Ndeye Ndiaye a gannaaw nag moom ak ñenn ñi nga xamante ne daal nañ koy joxoñ baaraamu tuuma rek ci loolu nag moom Ndeye Ndiaye Bane ah, muy métit lu bu baax a baax rek ña nga xamante ne ah, ñu nga koy jugé rek ah, ci na muy doxale waaye nag bokk na ci coowam ak Sidi Diop ba mu fay daal di jóge sax dem ca Wally Balago Seck mu mel ne nag dégg na lu ne waaye nag teewul moom mu nga rek daal di dëgër lool a am nag daal di génn addu ci li ni mel bokk na sax ci waajuram bu góor ba nga xamante ne mu ngay wax naan kii di Ndeye Ndiaye Bane tolloon na yenn guddi xaru sax la naroon na def rek la nga xamante ne ah, mu ngi koy dégg ci ay kàddu yu ñaaw ñu ko koy adressé rek waaye ah, moom Ndeye Ndiaye Banaya ah, muy wax sax naan daal di def ab pause rek ci carrière am ndax yenn ci a jafe-jafe yoo xamante ne daal na koy jànkonte rek bokk na ci divorce am waaye tamit yeneen yoo xamante ne daanaka dundu na ko waral nag ba moom mu daal di am lu ko métti lool ci ñenn ci sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi koy juge rek te xamuñu ko. ca loolu la ñuy des ba tey Pendou Guissé mu mel ni mu a jëlal part rek nga xamante xamante ne moom moo di Ndeye Ndiaye Banaya mu jàpp ne sax ne kii di Sidi Diop ndax du moom mooy warkat bi rek gannaaw ba nga xamante ne lu ne mu nga koy dégg rek ak la nga xamante ni sax daanaka ñu nga koy nemmeeku ci groupe am beeg ñenn nga xamante ne ñu ngay quitté rek waral ba moom Pendo Guissé mu daal di defub interrogation rek jëm ci ka nga xamante ne moom moo di Sidi Diop mu jàpp ne sax ne mbaadu moom mooy warkat bu mag bi ay dada naka noonu daal di nay rek défendre kii di Ndeye Ndiaye Banaya loolu nag gannaaw yenn ci ay critiques yoo xamante ne moom Ndeye Ndiaye Banaya daal dina koy jot rek waral ba moom tamit mu daal di rangé wu rek ci côté fecckat bi di ko jëlal par rek ci période yu difficile ya nga xamante ne mu nga koy a jamono ji Wally Ballago Seck mu nga woon ca soirée ba Amady Badiane organisé woon ànd ca ak ñenn ci waa Ramadane bokk na ci a Benjamin Ndiaye ñoom nag ñu daal di defu parrain rek ka nga xamante ne moom moo di Wally Ballago Seck ñu nga koy gis nag moom mu daal di teew ca soirée gis amuñu sax habitude di ko gis moom Wally Ballago a ñëw ca soirée toog di cons la nga xamante ne moom moo di musique ba waaram daan di rek offrir ña nga xamante a ñoom ñoo teewoon ci bile soirée moom nag mu daal di ñëw comme spectateur daal di rek a ca ña nga xamante ne loolu lañ ko daal di defaloon mu nekk bu Amady Badiane a daal di wax ci Awa Banaya fecckat bu Wally Ballago Seck mu mel ni daal dina yëngal soirée bu Ibro Nadio moom Awa Banaya nag daal di chauffeur public ba bu baax a baax rek ak fecc yu rafet yi nga xamante ne daal dina koy def rek lors de la soirée de Ibro Nadio Cheikh Sarr daal dinay débuté ca i rajo moom nag mooy jox auditeurs am yëpp rendez-vous ci bile rajo nga xamante ni sax daanaka moom fa la dal di teeri rek gannaaw mu jóge groupe des médias loolu nag mu leen réserver la yenn ci ay surprise ca télé ba ak ca rajo ba ngir rek bégal ña nga xamante ne ñoom ñoo safoon rek di ko topp moom animateur bi di Cheikh Sarr wax ci wàllub politique euh, ba léegi interrogation ci ka nga xamante ne euh, moom mooy wuttu euh, kii di njiitu réew di Macky Sall wala sax moom mooy doon rek mbër ma muy samp ci les élections présidentielles mu mel ni nag li ni la ba léegi rek kenn xamul kan mooy doon rek mbërub benn bokk yaakaar ci yile élection présidentielle yu attaque ba am ca frontière bu Niger mu mel ni nag fukk ak juróom-ñaar ci ay soldat daal dinañuy daanu loolu nag ñu jàpp bi le attaque daal di koy amal sax ca frontière bu Niger manifestation ya fi amoon mu mel ni lu toll ci cinquante personnes ñu tegoon leen loxo rek foofa ca ñu nga woon ca prison ba waaye nag seen famille mën nañ daal di rek seen doom yi. Dior Mbaye moom la gis noonu rek mu nekk artiste chanteuse. Diaz euh, nekk ku ràññee bu baax a baax moom la ñu gis noonu rek muy défoulé wu ci son bu Marie Dieng loolu nag mu nekk son bu neex lool ñu ngay gis kii di Dior Mbaye ak na muy défoulé rek ci la ñu gis mu nekk tamit actrice bu ñu bu baax a baax ci yenn ci ay série fii ci Sénégal gis nañ ko nouvelle photo yi nga xamante ne daal na koy publier ci kontam naka noonu la ko Amilaya defee moom tamit mu daal di doon ab actrice bu ñu ràññee bu baax a baax gis nañ ko moom. maam Jaariyatu Sow ñu gën ko xam ci Amilaya ak photo yu rafet yi nga xamante ne daal dina koy partagé Vénus Ndour nekk doom ci Youssou Ndour gannaaw mariage ba nga xamante ne daal na koy amal ak sañse yu rafet yi nga xamante ne daal na koy dévoilé rek mu mel après mariage ba daal nay rek fës daal di rek publier ay nouvelle photo kii di Kati ñu ràññee ko bu baax a baax ci série bi di Armère Thiaba mu mel ni a mariage am ak tenue ba nga xamante a soloon na ko rek daal nay créer réseaux sociaux yi ñu cee bëri di critiquer bi les tenues waaye nag mu mel ni moom daal dinay génn rek tontu ña nga xamante ne ñu nga doon rek saboté ña nga xamante di yëkkati ci bile abima la ñuy gis noonu rek ak bu yaatu ba nga xamante ne mu ngay daw seen diggante ñaar ñi nag mu mel ni ñu nga daal di proche lool ci rek animation ba nga xamante ñu nga koy def rek ci 2 waaye à chaque fois ñu ngay gis euh, nouvelle photo yi nga xamante ne ñu nga koy partager rek ensemble muy Khady Aïdara ak kii di Didier Khecha wax ci Fama Koundoul moom mooy soxna sañu kidnappé woon ak doomam mu mel ni ñii di famiyam amoon nañu njàqare lool waaye nag daal nañuy sax retrouver moom Fama Koundoul ñu gën ko xam sax ci mama mu mel ni nag ka nga xamante ne moom moo di ba ba léegi kenn tegu ko gët mu mel ni ña ko kidnappé woon rek daal nañuy téye ka nga xamante ne moom moo di doomam ja ba noppi rek relaxé ko moom mama ñu gën ko xam ci Fama Koundoul diwaanu Géejawaay xale bi amoon lu toll ci juróomi at ñu faatoon rek ca kaw terrasse ba mu mel ni nag doonoon na mbir mu doy waar waaye nag ñii di takk der ya gannaaw nag ñuy amal seenu enquête am na kenn ku ñu daal di suspecté rek ba teg ko loxo ci rek jëye ja nga xamante ne moom moo amoon rek ñu daal di faat ab xale boo xamante ni mu nga am lu toll ci juróomi at diwaanu Louga la ñu jëm kii Moussa lay wuyoo dañ ko daal di fekk rek ñu ñu daal di koy pendre foofa ca salle de bain moom moo daal di pendre boppam am dañ ko koo def mu daal di doon ab interrogation boo xamante ne enquête ya dina ko leeral moom Moussa Mbaye diwaanu Louga ca salle de bain am lañ ko daal di fekk rek mu daal di ñàkk bakkanam mbokk yi safandoon ñu teewlu lii lañ leen andiloon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi te laal cloche notification bañ dara suñu information